Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, honorables députés, Monsieur le Président déglu nañ bu baax euh, question bi nga xamante ni honorable député Serigne Cheikh Mbacké posé na ko euh, li nga xamante ni moom la ko qualifié mooy question préalable ci beneen yoon bu ma fi ñëwoon ci fan yële ci weesu am na benn question bu mu posé woon qualifié ko également de préalable mais maa ngi doon leeral ni li nga xamante ni mooy question préalable ak question de fond bokkul parce que question de question préalable mooy question boo xamante ni dañ ko war a saytu xool ko mu nekk question de procédure te bu fekkente ni nangu nañ ko kenn du dem ci fond bi mais li nga xamante ni mooy l ak L31 au contraire question de fond la et d'ailleurs la preuve dafa bokkoon ci point yi nga xamante ni moom lañ doon discuter ci dialogue politique bi am ay point yoo xamante ni euh, acteurs yi dañ si d' accord am ay points yoo xam ni acteurs yi d' ci points yi nga xamante ni acteurs yi d' accorduñ ci l ak L31 si la bokkoon loolu moo tax saa n'a pas fait l'objet de consensus ça c'était pour d'abord euh, benn précision bu ma bëggoon indi si qualification nature question bi nga xamante ni moom lañ posé pour demander d'abord que ñu écarter ko mais dafa am un deuxième niveau de précision bu ma bëggoon apporter également le deuxième niveau de précision mooy lii euh, député yi ak président de la république am na lu yoon prévoir si li nga xamante ni mooy constitution bu ñu demee ci article 78 de la constitution ak article 74 de la constitution bu ci nekk am na lu mu prévoir bu fekkente ni député yi un dixième bi dañu jàpp ni dafa am ay dispositions yoo xam ni àndul ak constitution loolu la ñuy wax la saisine facultative tey du bisam lu nekk dafa am waxtoom bu ñu nekkee ci yoon léegi li nga xamante ni mooy saisine obligatoire à chaque fois que dafa am ay dispositions organiques le président de la république obligatoirement bu ñu voté loi bi ba pare dafay saisir le conseil constitutionnel et c'est le cas bis li nga xamante ni mooy saisine facultative député yi mun nañ ko def ci un dixième mais loolu du bisam tey bu fekkente ni voté nañ loi bi ba tey ba pare moom lañ ko mën a def loolu nag mooy leeral bi nga xamante ni bëggoon naa ko indi pour wax ni dañu dañu indi wax boo xamante ni jotagul ñu ngi demandé ñu rejeté ko merci. Je vous remercie. Ce sont les trois.